arrivé le jour booru midi jàpp 13 heures rek nga dem buntu kër coon Seck nit ñi dañuy jóge ba Pikine dañuy jóge fu nekk dañuy rang ci buntu kër gi ba ci angle bi est-ce que xam nga ni Thione xaritam bu mu am bu ko wanee ginnaaw ay soxnaam Thione moo leen di jox dépense ba bu mu fi jóge est-ce que xam nga ni altine passé am na benn xaritam boo xamante ni xam naa tur wi xaw santam mu jóge fi mmh. soxnaam dafa dem coon da ko jox cent mille muy dépense semaine am comme ni mu ko daan defee ba pare ni ko altine la loolu de talaata àllarba alxames ajuma diweer mu jóge fi ci ci biir semaine boobu bi mu ko joxee cent mille pour dépense dani ko bu semaine prochaine nga ñëw pour ñu wutal la ay meuble nga teg ko sa kër hmm. loolu altine la dimanche mu jóge fi voilà quelqu'un boo xam ni il vivait au la de la musique dans le sociale hmm. addunaam lépp ci dimbali doomu aadama yi la ko def c'est dommage nag aspect yooyu yëpp bu fekkente ne mi ngi dund nga di ko gis rek diggante penc meeg galaay yeeg. Mhm. doo ak yeeg yooyu rek coow rek moo rek quoi li ci gën a mooy ah. coon mës ta dund mm. star mm. Ah. ci moom nga ah. gisee musicien buy woy mm-hmm. nga ñëw soiram di dugg mu taxaw ci bunt bi di jaay billet yi di waxtaan ak di waxtaan ak nit yi am na un mu taxaw nii benn waay ndeysaan ànd ak benn booy mm-hmm. booy coon sanga du daal di saaga mm-hmm. coon i eh, eh, mais kii ma lay saaga di man ko grand bàyyi ko waaw mu wa va bene. pour te dire que. va bene tegul boppam sax day toog wax reetaan kafre. Mhm. na mi nga xam ni. ñoom ñaar ndeysaan inséparable. Ah. dafa rus Mopenda bu du ko xool. Mhm. il a fallu que bu Mopenda toogee. Mhm. di jul yooyu nii nii la may def. naa ma sa waa ji mbaa léegi. man ko kii léegi moo la gën a see pour te dire que ay rakkam da leen di ñeewantal. amul kenn ci sago ci ci ay rakkam ay. doy na waar daal mm, mm. nëbbatu na ba dem ah ñi ko doon tooñ nag nan jéggalu ah. nan jéggalu yàlla ndax tooñ nan koo xam ni mm-hmm. non il était plutôt nitu diine mm-hmm. que artiste est-ce que est-ce que du loolu moo tax nga nga nga fonk ko maître parce que mënoon nga yem rek ci prestation ak moom euh, ne avocat nga da nga koy layool après point mu jeex waaye dañu gis itam relation bu bu doy waar mm-hmm. entre yow ak Thione Ballago Seck parce que Pape Thione lu ñu yàgg maa ngi wax léegi yaañ na ko ëpp na presque fanweeri at mhm. lii salaam di wax ci oy fu coon man dama koy seede mhm. avant mu génn àddina nii coon li doon ànd ak sama doom sama taaw moo ëpp day ñëw suma kër rien pour seet ci sama doom mhm. sama doom di dem këram coon bu ñëwee suma kër fekkuma day toog di waxtaan ak gardien yi day nag ñoom sax ataaya mun na toog suma kër deux heures de temps trois heures de temps boo ko fekkee dangay ngay foog ne sax du coon noonu la mel ak sama soxna sama soxna tey dafa jooy encore parce que li ma lay wax nii euh, il faut que d'abord ma rendre hommage Lamine Naar ñu ngi ko doon waxtaane léegi. Mm-hmm. bu mag. bu mag Lamine Naar Diop bu mag wax tafsir xayaat. nit ku baax moom médiateur la. ma booleeg coon moom ma booleeg coon médiateur médiateur social. day ñaw rek moo ma booleeg coon bu man maay avocat Mass Diokhane. Mm-hmm. ndeysaan. te boobu coon soxla na ca maas su fi doon tey musicien aw commencé ba ci Youssou Ndour mi promotion ma la doon promettre di jaay sa cassette boobu suñaa ma coon soxla na ko man ma doon avocat maas Lamine Naar boolee ma ak coon ah, ma ko léegi ma lay wax nii ça fait trente ans Lamine Naar moo ma bind ak Kiné Lam mu ngi may dégg ah. boole na maag musicien yu bëri moo tax man nekk presque avocat artiste yu bëri ñoom Cheikh Ndigal yoo di ngay gis nii ñoom ñoom ñëpp défendre naa leen mm-hmm. même ba ba ci même Kouthia mi mm-hmm. li may wax ñu ngi may dégg mm-hmm. xam nañ ko alors euh, dañu wax léegi aussi euh, ne ne ne coon dañ ko wax di ñaanal loolu njabootam xam nañ ko man mi wax yow mi tey laa jóge kër coon ak sama njaboot sama jabar ak samay doom dama fekk ñu koy ko la wàccal alxuraan oh. doomam yëpp toog falama biran nduur mi fekk moo tax may wax ne nit ñi nañ bàyyi wax lu ñu xamut nañu nañuy bàyyi boole nit ak nit nañu tàppe seen xol yi nañu yéenante jàmm nañ bàyyi iñaan nañ bàyyi soxor yàlla wàccee yiw ci Sénégal diggante Thione Seck ak Youssou Ndour dama ci xam dara. man dama nekk avocat Youssou Ndour. nekk avocat Thione nekk ci seen diggante. Youssou Ndour à chaque fois. dara yëngatu concerné Thione Seck woo na ma. mu may dégg. wax ci lu baax dox ci lu baax. bi ma koy mujj bi mu ciy mujj a dox. man la woo këram. man ak moom ak jabaram ay la rek. mu yóbbante ma ci Thione dox ay tànk yu baax. Mhm. ci mbiru Thione Seck. donc bu ñu bëggee jël Youssou Ndour di ko opposé. ak Thione coow lay am yenn temps man dama daan oo Thione sax ma ne ko Thione bul déglu nit ñi. buñ la utal noonu. buñ la utal noon parce que nit ñi utal noon nit rek lañ mën. surtout nag boo tolloo fenn fii. mais lay utal noonu au ko ñu dimbale la. loolu. dama ko bëggoon témoigner. ci diggante. Youssou Ndour ak Thione parce que nit ñi buñ gisee sax diggante boo xam ne neexut mhm. nañ ci dox tànk yu baax mhm. moo gën ñu ci féewale ay au sax mhm. Ousmane ba ci digganteem ay rakkam euh, musuñu leen may jàmm mais Ousmane. Euh, wallaay damay profiter pour nuyu njaboot. Youssou sax sori na sori na waaye ba ci digganteem. rakkam digganteem ak ay rakkam parce que yàlla def na ne. njabootam yëpp dañoo yaru mhm. maandu baax na de. dañoo yaru mhm. man dañ ma jox cër. si lay nuyu Ousmane. jërëjëf mais ñooñu. coon coon ak Mapenda. coon ak Mapenda mii ngay gis nii. Mhm. ñoom ñoo daan diwoo RK boobu ma la wax. RK waaw d'accord bi Mapenda di dem. coon daf ko jox matériel. waaw noonu la la def moom mii noonu la ko defal. man mi noonu la ma def moom leen jàngal musique. du ñuy leen di bu mu leen di bàyyi bu mu leen di ber. beru leen ak loxo neen. non non non li ngeen di wax léegi ne coon day taxaw doomu aadama. man ci sama bopp yow nga tudd rek da nga tudd léegi xadimaane. mais xadimaane man xaw ma ko woon coon moom moo booleeg moom. bi jëkkëram gaañoo xadir mbàkke. coon moom moo yóbbu ba këram. ne ma kii jëkkëram suma xarit la woon. xadir waaw. moo doon jëkkëru xadimaane. mooy na ko wéy jëkkëram suma xarit la woon. dafa génn àddina. te am na lu mu fi bàyyeeg yooyu dama bañ kii ñu sonal ko ëllëg boobu nga nekk avocat mm-hmm. Mm-hmm. man maa def succession Kadir Mbacke mm-hmm. ndax coon moo tax moo booleeg moom am na ñu bëri ñoo xam ne coon boole na ma ak ñoom dañ am problème devant la justice li mu doon wax ne coon dafay taxawu doomu adama loolu laa bëgg dëggal ne jullit la loolu laa bëgg dëggal parce que tey bi ma demee këram dama fekk ñu fay wàcc alxuraan dem bu ma ne dem loolu yeggee ci loolu dem tamit ca xam ci loolu nga yem donc bis bu jot ñu ngi koy wàcceel kaamil ci këram donc wax dëgg yàlla li ma doon wax léegi bi ma commencé mm. ne ginnaawam rafet na ah. mm-hmm. war na sant yàlla ah, ay njabootam war nañ sant yàlla mm-hmm. képp kuy génn àddina da nga bëgg ñu taxaw la mm-hmm. ci niñ ko taxawoo rafet na ca dal na xel euh, misaal la aussi da nga doon wax ne eh, nit ñi bu ñu demee rek la ñu xam lu ñu def. ma nga na ci na ci àddina bi jàngaat na ci nit ñi jàngaat. ñu dimbali ñu ñu ngi ci tàng tàng dañuy dem ak émotion. Ah, ñaari fan ñetti fan ñu fàtte bàyyi ko fàtte ko. Ah, waaye man daal jaaxle na